taw mooy pëf. luy loolu. mooy les cigarettes électroniques la yi nga xam ne dañ koy jaay fii malheureusement. cigarette électronique. c'est la. Ah dañ koy mmh. vapoter. Mmh. Ah alors xam nga cigarette non mais bi mu wax pëf la moo la. pëf ah, la ñu koy defaree après. noonu la tudd pëf la tudd. Mmh. Euh, bu ma xamoon sax damay andi image yi wan leen ko euh, mais ce sera une prochaine. mais boo ko gisee mën nañu ko génnal waaw voilà dinañ ko xool en boo ko gisee benn tube lay doon nii. Mhm. Euh, dañ ciy def trente mille bouffées wala trois mille ah. bouffées quatre mille bouffées. Mhm. Euh, donc boo fa bouffee bu jeexee nombre de bouffées boo ko tiree bu jeexee c'est jetable. oui ça mhm. coûte à peu près quinze mille francs. mais mais c'est une drogue très puissante hein. et l'accès est facile parce que yenn grande surface yi dañ koy jaay. Eh, mais dañ koy jaay sur le net. dañ koy jaay sur le net dañ koy ah, jaay man dama koy jël pour bàyyi toog. non parce que yi ñuy wax dañ koy jël. par bàyyi bokkul ak si saa ah, non si saa beneen la mais yooyu yëpp. bokkul aussi nga xam ne dañ koy jël pour pour pour kii par exemple les pastilles autres là yi ñuy non non c' différent c' différent bii moom c' carrément un produit la tudd booy dañ koy jël di problème bi mooy yenn grande surface dañ koy jaay ci yenn grande surface yi 15000 francs lay jar 12000 francs les gosses xam nga non dañ koy bind boo gisee dañ ci 30 la ça dépend ci combien de combien de bouffées 3000 fay mooy <laughs> mooy dañ ko ciy bind ci boîte bi ah dañuy bind tuuti 3000 bouffées euh, bi 4000 bouffées bi 5000 bouffées si tu nombre de bouffées après ça devient jetable. te am na yoo xam ne c'est rechargeable am na yoo xam ne c'est rechargeable. am na yoo xam ne c'est rechargeable. am na yoo xam ne nag da nga koy tirer après mu jaar mais xale yi dañ koy utiliser lu bare mais euh, xale yooyu noonu est que ça du ñu dem ba après ah, instrument bi. trafic instrument bi di ci dugal ñoom. je yëfu bopp. am na yoo xam ne c'est jetable. Mm-hmm. am na yoo xam ne c'est rechargeable. mais loolu rek nga ko mën a utiliser. c'est-à-dire koy vapoter rek. c'est des produits yoo xam ne nag yu extrêmement grave produits c'est des produits euh, yoo xam ne dafa additif. xale yi bu ko benn yoon. effectivement pour mu bàyyi ko day daan day day nekk day day day mm-hmm. day dugg dans la da ngay xool ni. donc loolu nii vidéo ak yéen ñoom dañ koy def comme si c'est fashion quoi. oui oui euh, oui comme c'est fashion day euh, koy téye yu bari booy yu bari dañ koy. comme à tey bon de toute façon xam nga euh, drogue yi moom chaque jour gars yi créer lu bees. Mhm. boo xoolee ecstasy bi ñuy wax suus. boo ko gisee forme de bonbon la. Mhm. couleur yu rafet. c'est assez attrayant sa doom mun na ko utiliser nga yaakaar ne effectivement kii day màcce tàngal. fekk mu ngi jël un produit extrêmement dangereux.